jërëjëf mbokk yi ba tey rek di amat mbégte bu baax a baax a baax ñu koy defee boobu ba léegi ñu nekk ci li nga xamante ne nag moo di suñu bësu frère suñu xarit euh, Pape Demba ñu gën ko xam si euh, Abdou Lahad te nag mu doon mbégte boo xamante ne képp kuy sénégalais euh, ko waaye ma toog nag koo xamante jamono ji bokk na ci xale yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax it liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def muy sama sista Nabou ah mais kon ki ne ki ne ki ne ki ne la ma a gis wax xaw kaa fàtte si <laughs> lu mu bu baax a baax ci jàkkaar jàkkaarloo ak yow ma bàyyi rek nga nuyoo mbokk internet yi système. maa la gën a kontaan. Mhm. mon frère. Mhm. maa ngi lay fay. Mhm. di la jaajëfal. di jaajëfal internet yëpp yi may seetaan. macha allah di jaajëfal internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan comme ni ma koy waxee rek sénégalais gëj nañ la gis namm la tey nga am occasion jàkkaarloog ñoom fii yan kàddu ngay wax fan si ak soppe yi nga xamante ne saa su ne dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne moo di liggéey bu rafet bi nga leen di. Ah, di kontaan si ñoom di leen jaajëfal voilà kontaan naa tamit tey kiw ak ñoom. Uh-huh. ñu jàkkaarloog man. ñu jàkkaarloog <laughs> waaw. waaw sa yëg-yëg ci bés bi nga xamante ne suñu frère. Uh-huh. mooy jël soxna Pape Demba ku ne xam digganteem ak artistes yi. Uh-huh. ban yëg-yëg nga am ci bésam bi. ah euh, yëg-yëg ma am ci bésam bi moom mooy kontaan parce que Lahat moom nit ku baax la franchement collègue bu baax la. liggéey bi moo tax ñu xamante te biñ ci xamanteek moom ba tey aussi amuñu ci dara luñ siy rëccu nit ku bëgg nit la moo tax gis ngeen fii ni mu mel mm-hmm. ñëpp a ko ñëwal mm-hmm. nekkul ne sax waa emprise kese ñoo ko ñëwal série yëpp ñëpp a ko ñëwal c'est une personne boo xamante ne ni il est euh, il extraordinaire nit ku baax la franchement voilà ñu koy ñaanal sëy bu barkeel yàlla may ko si njaboot bu barkeel yàlla jubóole kaat soxnaam ñu sonkorloon de asamaan ak suuf asamaan ak suuf incha allah mais à chaque fois dañuy faral di ko wax sëy ak célébrité yombul mhm. bu doon ay kàddu ñaax sa sœur wala sa chérie boobu nga xamante ne moo waral bés bi yan kàddu nga koy wax ci sëy ak célébrité. Euh, ak célébrité yomb na yombul voilà yombul dans le cas où tey nit ku siiw ngay ngay sëyal mën nga dégg lu nekk mën nañu ñëw wax la lu nekk et aussi euh, nit naturellement rek soo bëggee da ngay fiir donc booy sëy ak célébrité muy bu góor bi muy bu jigéen bi tey euh, ngay seetaan yenn seen yi am na nu muy war a mën a def si yow. voilà mais tamit da nga war a xam ne loolu muy def rôle la c'est pas sa nature voilà c'est pas la réalité c'est une fiction bu ci jàllee nekkatul Pape Demba ngay ngay gis euh, Abdou Lahad ngay gis donc euh, boo xawee mën a def la part des choses rek warta war a mën a métti te ku nekk aussi xam nga sa waay muy bu góor bi muy bu jigéen bi donc euh, yooyu yëpp bu ci amee nga xam ki nga nekkal ngeen am relation bu solide je ne pense pas que war na mun a am problème façon métier bu nekk sax boo mënti gis moom fépp risqué. dina raw sax daa wóorul pour réew mi. wóor wóorul di. wóorul dara wóorul. dara wóorul. ana sëñ bi. amaguñu. la jàpp yéen lan mooy bu ngeen bëggee nekk ci série bi nekk mère de famille yor seen njaboot di doxal te yéen a jiite célibataire yi ngeen teg ko fan. ah yow tontu nga sa bopp di instant bi ndaxte yow yaa ma wax sànq que ni. <laughs> sa yëg célébrité loolu personnage la rek voilà bu ñu incarné perso euh, rôle boo xamante ne nii dañ si nekk célébrité dans la vraie vie ah mën nañu dañ euh, autant pour bu ñu incarné rôle boo xamante ne nii tey kat euh, dañ si nekk marié mhm. dans la vraie vie suñu statut matrimonial bokkul ak li ñuy joué ci série bi ah, ah. voilà ah, mais Sénégalais yu bëri tamit dañ leen jàppee ay marié ngeen lan mooy problème bi yéen a dañ ñu jàppee ay marié oui parce que ñi ngeen di joué conseil yi ngeen ci jox jàngale ngeen ci joxe ni ngeen war a toppatewee seen borom kër ni ngeen war a sëyee muy lu rafet loo xamante ni yéen a ngi koy wan askan bi ngir ñu a dundee noonu seen néegu sëy en plus que ah mais loolu ça n'a rien à xam nga tey man sama statut matrimonial que je sois mariée que je sois célibataire ça n'enfreint en rien si lu may joué voilà mën nañ ma jox tey rôle marié mën nañ ma jox rôle célibataire mën nañ ma jox rôle mère célibataire mën nañ la jox rôle eh, rôle rôle rôle loolu ça n'a rien à voir mm-hmm. sama statut matrimonial loolu euh, mm-hmm. sama statut matrimonial loolu sama sama vie la c'est ma vie privée ah. voilà kañ ngay fay bor bi dégg naa xew mi ngeen dem lekk fa bëgg lekk ko lekk ko ceeb te ngeen di jàpp ci yàlla fay bor waaw ñoom nañ ñu ñaanal rek nañ ñu ñaanal nañ ñu a dàqaate non dàqewuñu de dàqewuñu bu jotee rek yomb incha allah mm-hmm. mais boo faral di dégg à chaque fois ñu yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci ñenn ci artistes yi jigéen yi naan artistes yi jigéen yi duñu ay sëykat bu ngeen ko dee dégg nu muy def ci yéen waaw ah, loolu ay tolluwaay la rek parce que nit ki moom ku nekk euh, tolluwaay bi nga am ci ci ci ci ci ci benn mbir je disais que ku nekk tolluwaay bi nga am ci ab mbir noonu rek nga ciy mën a demee donc am na ñenn ñoo xamante ne ni mun nañu porter ay jugement de valeur ñëw ne voilà ñu saykat am na tamit ñeneen ñoo xamante ne ni am nañ ci beneen jugement ñun ñi nga xamante ne ni tamit la yàlla may tur ñun xam nañ suñu bopp donc euh, voilà loolu la. mais aussi à chaque fois dañuy faral di dégg bu ñu ko waxee artiste duñu ay saykat problème bi ci lan la ñu bëri dañuy jàpp ni succès bi la wala tey du ñu neex a contrôler wala du ñu neex a maîtriser lan mooy waral coow loolu di jub. ah foofu nag moom est-ce que man dinaa ci mën a sori parce que xam nga ku nekk artiste bu nekk ak viom man ak sama vie beneen artiste ak viom kii ak viom donc tey mënuma en fait seede loo xamante ne nii aussi leeru ma n'est-ce pas ma tey mënu maa wax ne que ni. succès bi la wala yow gëmoo succès woon na. ah man ah, man de wax dëgg yàlla man gëmuma ne loolu la succès bi la déedéet gëmuma loolu. jàpp ma ni succès moo tax euh, ñuy bañ a sëy wala loolu non sëy mooy taaru jigéen tey jigéen bu nekk bëgg na am borom kër. bëgg na am njaboot. voilà loolu la rek te jàpp naa ne aussi sëy bu amee mu mu yàlla weddi. je ne pense pas que loolu moo nekkoon intention wu ñaar ña ko sekkoon voilà xëy na yàlla moo ñëw rek ak mbiram te yàlla tamit lu mu tudd lu mu tudd lu mu tudd ci destin wu nit mm. kenn mënu ci dara bu tuddee ne di nga jaar fenn génn kenn mm. mënu ci dara bu tuddee ne aussi di nga sëy aussi ba des fa kenn mënu ci dara mm-hmm. loolu yëpp ay mbir suñu borom la te loolu sax en fait cela warul sax dem juste ci euh, artiste ñëpp la mm-hmm. voilà ñëpp la mm-hmm. fekk na rek artistes yi xëy na ñoom la ñoom ñoom ñoo nekk ci kanam. ñoom la ñuy ñoom la nit ñi xam. que voilà mais ñëpp la rek. mais ñëpp la ñëpp la concerné loolu sëy moom. bakken la rek. bakken la rek kon ñu ngi ñaanaat bi ñu fiy ñëw yàlla na doon sa bos. ah xam si nañ ko te yéene nañ la ko aussi. ah ñoom dañoo baax dañoo baax. yàlla na yàlla nangu ñaan yi rek. incha allah incha allah ginnaaw euh, loolu sénégalais nag aussi ginnaaw emprise gën nañ la gis ci nga xamante ni moo di ci milieu bi. ci kaw scène bi gën nañ la gis fan la nekk. ah maa ngi fi. maa ngi ci samay activité parce que kinne bi tam rôle la rek voilà Awa Diagne am na <laughs> am na vie uh-huh. am na ay activité professionnelle yu muy exercer à côté donc maa ngi ci uh-huh. bu bu ñu waree gis rek dañuy gis uh-huh. loolu la ginnaaw emprise boobu ba léegi da nga toog sa coin parce que nga xamante ne yéen a ñu ngi leen di gis ci li nga xamante ne moo di kanamu écran bi. lan la da nga leneen loo xamante moo gën cinéma bi jamono ji ba amoo temps wala lan la. du caagee ne occupé lu gën cinéma bi sax parce que tous les métiers mhm. se valent. Mhm. cinéma bi métier la. Mhm. beneen liggéey aussi liggéey la rek. voilà man nag defuma ko à temps plein dama koy def à temps partiel. voilà donc à ci ci à côté am naa sama yeneen activité am naa tamit yeneen i carrière boo xam ne maa ngi koy suivre loolu rek la mais du leneen mais heure suñ ma waree gis moom dañ may gis que ça soit ci série que ça soit ci réseau yi mm-hmm. euh, di gis loo xamante ne daan ñu ko woon gis ci ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi décemment dañuy faral di gis ay toog ci télé bi doog kon daan liggéey ñu dégg ñu génn di yàqante tey la nouvelle génération yéen ngeen ñëw mu ne da ngeen changé game bi tey bi ñu xoolee li fi am day wane ni booloo am na seen biir benn ngeen yéen a bokk ndey yéen a bokk baay Euh, je comprends pas la question si tu. la question tamit tey dañuy gis ñenn si ñi nga xamante ni ñoo di seen ay nawle artistes yi daan ànd démb ak barki démb tey jamono dox ñu daan ànd démb ak barki démb ñu génn tey ku si nekk di yàq sa morom. Mhm. tey ñu gis vous la nouvelle génération li fi am tey mu wane ni tey yéen a ngi bàyyi loolu xel. Mhm. ba mbooloo bi sénégalais di xaar ci yéen am na ci bésu tey ji gis nañ loolu yan kàddu ngay mën a wax ci loolu. ah man yaakaaruma ne sax avant y avait des problèmes ah je ne pense pas mais. quoi que l'on puisse dire c'est que booloo moom mooy doole voilà lépp lu ñuy liggéey liggéey moom taamu nañ ci travail en équipe n'est-ce pas quand c'est individualiste ça ça déborde un peu donc booloo mooy doole donc su ñu demee tey ba gis ne que ne en fait lien yi ñu ngi gën a rafir raffermiru ñu ngi gën a déggoo dañ koy sante yàlla di ñaan yàlla aussi mu jëm ci kanam voilà mais à chaque fois tamit kaw ndax euh, nouvelle génération bi yéen a am fit yéen a bu ne. bu kenn ñemewut <laughs> a koy ngeen dee dégg loolu lu leen def. ah liggéey boo gis moom moo critique ñoo ànd voilà booy def booy exercer benn métier te amoo ci ay critique xoolaatal sa bopp voilà léegi nag dafa am critique yoo xam ne nii day objectif am yoo xam ne nii kat mooy loolu bu fekkee ne yi nga xam ne dafa objectif da koy jël rek dans le bon sens. nga xool lan nga ci euh, lan ngay lan ndax am nit ku ñëw ngay liggéey dara mu mu am yom la ci souligner yaakaar naa ne bañu la kooku dalaa bëgg daa bëgg nga parfaire donc soo nekkee ci mi si si si as mbir nga koy liggéey ñu gis ne que ne kat ah am na lenn loo ci def lu jaaduwul am nañ droit ñëw ne la euh, defee ko nii bu beneen yoonatee nii wala sax nga teggeeku ci yoon ñu ñëwaat teg la si yoon mm-hmm. loolu xam nga loolu lu baax la des fois nag am na ñoo xam ne nii kat ah, dañuy jël rek catégoriser lépp wala xool la leen neex rek ñu wax ko doo leen ko jàppee ndax seen tolluwaay la ndax nit moom tolluwaayam ba ma lépp ci ci xel bi la rek. Mm. nit ki fi mu toll foofu rek lay waxee. man moom loolu rek man lépp mentalité la. Mm-hmm. bu fekkee ne sa tolluwaay foofu fi nga toll rek foofu ngay waxee mais bu nit ki amee benn tolluwaay waxee foofu yow nga xam li xew mm. xam yow sa bopp. waroo tiit. da nga naan kii xëy na dafa réere mbir rek. dafa réere mbir. Mhm. Euh, bu ñu bëri dañuy faral di wax euh, jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci série yi wala ñooy fenn ci télé yi. dafa am lu ngeen di taxé nga jàpp ni série fii facile boo de dégg loolu du koy wax nu mu lay def. loolu tamit tolluwaay la. ndax fii moom saa yu ñu xëyee ñu dégg fi lu ne. Mhm. waaye ku wéet xam sa bopp. Mhm. mais bu fekkee ne yow yàlla xam na yow xam nga ñi la euh, ñi la wër xam nañ ah. jugement de valeur moom mun mënut ñàkk moom ci nit yow mii nii tey jii am na ñoo xam ne xamuñu la mhm. ñu ngi am na lu ñuy xalaat ci yow voilà man noonu keneen noonu keneen ak keneen noonu et métier yëpp nag du sax métier wu euh, du du sax actorat kese métier yëpp la mhm. ci série bi la ci gën euh, bokk na ci samay première expérience professionnelle voilà ndax dam teel naa si dugg quand même mhm. dama si teel a dugg boobu maa ngi jàng mu bokk ci samay première expérience bokk ci samay première euh, expérience professionnelle et puis euh, ndaxte ñi ngay liggéeyandoon tout le temps bokkoo leen ay ay éducation ku nekk dangay ñëw indi sa sa ku nekk day ñëw indi sa personnalité ku nekk day ñëw indi sa caractère léegi nag yow la la nga indi sa biir kër yi aussi loolu ngay indiwaale donc ci vie boobu noonu ce sera pas facile des fois nga gis koo xam ne nii danga naan kii moom li muy dund man dund ma loolu des fois nga gis koo xamante da nga naan ah kii nii la mel léegi pour en fait loolu mën a neex dafa am loo xam ne da nga koy wàññeew ci sa bopp pour mën a nekk ak nit ki léegi yow ci ñëw am na tamit ngay gis ay yenn jikko wala ngay gis yenn nekk yenn comportement da si da nga si en fait da lay jàngal man lu baax rek laa si gis parce que da lay da ngay jàng si nit yi nit yi di la jàngal ngay ngay ngay xool yow yoo xamante ne sa ay défaut la woon mhm. ci vie en équipe ci ci vie ak ay nit nga waañ euh, wàcc ko mhm. pour euh, mën a nekk ak nit yi si si parfaite euh, harmonie mhm. macha allah kontaan ci jàkkaarloo ak yow. xam naa di ngeen a sonal naa la non déedéet yoon ñun ak yéen ñoo far. c'est vrai. kontaan nañ bu baax a baax. maa leen a ah, xanaa di leen jaajëfal. kontaan naa si interview bi. di la nuyu di nuyu ñëpp di nuyu internet yëpp yi may seetaan voilà di nuyu fans yi di leen wax euh, à la prochaine ci yeneen i mbir waa yeneen i projet hmm. waaw incha allah merci beaucoup mon frère jërë ngeen jëf di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf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 96 96. àndala buri mooy saafara sa yaram.